ak ñi koy bind lañu oo ngir ñu dal di jëmmal bile salon national du livre ay livre didactique ay livre bande dessinée ay livre yoo xam ne dafay lépp ñi nga xam ne dañoo bëgg di nafar duñu am lu leen naqari soxna moom bindkat la bind na lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn téere moom nag nga xam ne da yëngu ci wàllu scénario tamit jàpp na ne askanu Sénégal dañuy liir bu baax a baax waaye rek ne dañoo am lu ñuy taamu. li ñuy liir euh, dañuy liir parce que dañu am soxla saa di tey ñu ngi jàng école soxla nañ livre ñu ngi ñu liir livre bu mel noonu ñu ngi liggéey soxla nañ benn livre ñu liir ci loolu mais dañ mus a liir parce que man damay fàttaliku bi ñu nekkee xale dafa amoon ay bande dessinée te bande dessinée yi Sénégalais dañ ko soppoon mais dañu togg toog benn instant rek bande dessinée yi dee te bi ñu seetloo ne bande dessinée yi dafa am lu bëri lu mu rey bu bi muy dee. ngal langue locale yi jaareele ko ci lecture lu mën a nekk la loolee mooy gëm-gëmu jàngalekat bii. bu ñu fekkee ni réew mi dañ ko xaajale téeméer téeméer ñu xaajale ko téeméer euh, téeméeri cër ñaar fukk yi ñoo mën a wax tubaab. waaw léegi ñaar fukk yooyu loolu boo bëgg tabaxale réew mi réew mi ku ku bëgg tabax da jaar fa laa budde di nga jaar si langage du du yee sax loolu moom faaw ñu jaar fa diine tamit desul ginnaaw ci mbir mi moo xam alxuraan bible bi wala sax toora bi yooyu la jàngale ak religion bu mu ci doon éditeur yi bind nañu ci dangeen tëggal teelu wàllum réseau wàllum diine dem si xale yi jàngal seen diine ak ñu mën a euh, gis seen bopp kon na suñu téere yëpp si diine lay nekk mais am na yeneen téere yoo xam ne wàllum politique ak lépp beneen fànn culturel ñoo ngi koy liggéey ñoo ngi si lu mel ni soninke taamu nañ say bind te wolof itam leen mu génn si wàllum euh, alxuraan boo xam ne wolof lañ ko bindee bindikat yi dañuy jaarale ci seeni bind ay message di yee askan bi naam lu ni mel doon na ak mbégte da leen di ñu dugal seen loxo ci dundinu askan wi waaye lu ni mel taxul ba ñoom ñu mën a dund ci seen aar